der réew aussi dafa am nu muy doxee réew dafa am nu muy doxee dafa am lu ñu tuddee licence am lu ñu tuddee agrément maanaam réew du ku mu neex ñëw def lu la neex ak na mu la neexee ak fa nga ko neexee surtout bu fekkee ne bu doon sax ay mala ngay yor mala sax boo koy yor wala tey nga ne dama jël décision tey ji wut sama benn ay ay gàncax sax laa la wax su boobaa sax dafa am loo xamante ni moom moo la war ci gàncax googu nga jël ne da nga koy toppatoo wala mala yooyu nga jël ne da nga koy toppatoo à plus forte raison nag doomu adama quelque que soit aventure boo mën a dem ak ñoom dafay am soit licence bu ñu lay jox wala agrément licence ak agrément nag cahier de charge moo koy lal cahier de charge boobu dafay am ay obligations yooyu ciy am mm-hmm. am tey dans ce débat là et c'est ça qui me frustre mais qui a kan moo joxe licence bi ki joxe licence bi moom moo am le devoir et la responsabilité de faire la police mhm. de surveiller dans quelles condition licence bii ñu ko jox ndax yelloo na ko wala de su madame je parle sous votre contrôle su dul noonu nga wax ma <laughs> waaw comme yow yaa ci def xalaat ba bind ci téere donc pour wax ne am na ci loo xamante ni ci réew su amee rapidement on situe les niveau de responsabilité et je comprends pourquoi c'était ça a été laborieux pour pour pour Malal parce que en réalité li tax mu laborieux mooy lii média tribunal médiatique du ko lijjanti. Mhm. et c'est là où celui qui est quelque part par procuration le procureur de la République mhm. censé représenter la peuple c'est là où il trouve tout son sens dans la société société dañ koy dimbali mais mënuñu toog nit ñi di dóorante bopp ñii di wax am na ci ñoo xamante ni seen mbiri bopp lañ ci bëgg a lijjanti ci biir ñii bëgg cee régler ay compte ñu bàyyi ku nekk di wax ak lu la neexee alors que moom mi nga xamante ni il est le à pouvoir connaître ce qui se passe dans ce dossier jusque dans ces profondeurs yi gën a sori mais kooku rek moom moo war a taxaw nag daal ne mbir mi lii moo ci xew wala fii lañ ci toll fii lañ ci jëm ñii ñooy les personnalités qui ont été citées ñii ñooy les personnes morales ou physiques qui sont responsables mënuñu ko xam moo tax c'est laborieux pour tout le monde loolu mooy par rapport à ce qui se passe mooy le viol supposé ou réel que nous condamnons avec la dernière énergie. Il n'y a pas de débat à ce niveau. C'est-à-dire que c'est une condamnation systématique et énergie amul amul werante léegi nag bu bu dee loolu am na kenn rek moom moo ci mën dara c'est la justice moom moo mën a situer les responsabilités su loolu amee ba pare ñu xool nag ki nga xamante ni moom la ñu wax ne moo am licence organiser loolu est-ce que remplir na li nga xamante ni est-ce que lan lu ñuy wax capacité technique et financière. ndax am nga capacité technique yi ndax am nga capacité financière yi ba noppi ñu doog laa xool ndax lii dañ koo war a dindi wala déet wala ndax dañ la koo war a jox nga def ko wala déet donc kan mooy joxe licence bi kan moo waroon a def police bi kan moo ko waroon a saytu parce que moom ci boppam nee na sax ci biir waxam bi ma ko déggee mu expliqué mu ne waaw hôtel bi ma leen doon yóbbu dama doon wut ay nit yu leen di surveiller hmm. c'est problématique hmm. hôtel xanaa day loué hôtel bi yëpp bu fekkee ne day luye hôtel bi yëpp sax dañ ko war a d'accord ne ko yi nga leen fii nga leen di jëlee concours bi ce sera au niveau régional su paree bu ñu ñëwee Dakar ci conditions yi lañ war a nekk bu loolu paree nag ba nga xamante ni la justice est faite dans cette affaire là après nag su boobaa peut-être que dans un autre débat mm-hmm. mën nañoo ñëw nag waxtaanee la pertinence de l'organisation de Miss Sénégal mm-hmm. su boobaa c'est un autre débat qui est passionnant par rapport à nos objectifs de développement ñu am à à les niveaux ban place la ci parce que Miss Sénégal boo demee ba nekk ko ak euh, en tenant en compte bien sûr d'une certaine réalité sociologique boo xamante ni ci lañ koy organiser parce que mën na ko organiser ci ni ko ñeneen ñi di organiser mën nga ko jël sénégaliser ko bien entendu en gardant certaines valeurs universelles ba nga xamante ni dina dëppoo ak suñuy réalité ba nga xam parce que Miss Sénégal bu ñu ci eggee rek c'est le symbole et là où c'est dramatique aujourd'hui mooy on nous dit qu'on un symbole c'est un symbole léegi nag symbole boobu bu ñu demee ba téye ko nga xamante ne nañ kii mooy Miss Sénégal nan lañ ko war a mettre dans une dynamique qui puisse accompagner nos objectifs de développement on a le nez sur le guidon on a le nez sur le guidon avec un esprit très revanchard souvent dans ces genres de débats ba du ñu xool de façon euh, holistique nan la ñu def ba nga xamante ni kenn ku ci nekk dina mën a xam lan mooy dëgg ak lan moo ko dëggul ak wax ji kan moo ciy waxte yàlla tax ak kan moo ci topp bakkanam rek et je pense que y un besoin de lucidité une nécessité impérieuse de sa parler et de demander à la justice d'assumer sa responsabilité de demander au ministère qui en charge mmh. ces genres de manifestations d'assumer sa responsabilité parce que moom moo délivré woon licence bi moom moo délivré woon agrément